actuel ji la jëm ci li a xamante ni ñoo ñu bàyyi xel ci toutes les plateformes. waa jaajeen jëf euh, di nuyu d'abord mbokki waa Sénégal gi yëpp surtout kilifa diine yi responsable religieux yi nga xam ne depuis démb suñu téléphone yaa ngi xadaraan yi ndax ñi mer dafa bari. Mm-hmm. ba am na ci ay kàddu yu ma dégg sax yu ñoo xam ne dañu naan Jamra yéen ñu tooñ ndax ba nga ko jëkkee yóbbu ci yoon euh, juróom benn weeru détention préventive le procureur dogaloon ci moom mm-hmm. waaye yéen a fi nekk di dawalantu yërmande ba ba mu tëddee ñaari weer ci ngeen dem retirer plainte bi ñu bàyyi ko mu libre mm-hmm. donc am na kilifa gu ma ne lii wane na ne ñun yay nañ la yërmande baax na waaye dawal ngeen yërmande ci koo xam ni mhm. li ci yàlla xam doy na donc de depuis démb daal démb 4 heures du matin laa tëdd waaye fu ne jot naa fa coup de ci këru diine yu bari bari bari ñi mer mboog bari na mhm. euh, ma bëggoon nag am lu ma fàttali mhm. ndax Sénégal dafa bari ñoo xam ne dañu baaxoo di jëfee loolu Kocc Barma naan dàq sa ginaar waxaale sa soxla ma bëgg leeral ni combat yi Jamra mës a mëne yëpp benn diabolisation benn acharnement amul ci envers qui que ce soit suñu jàmmarloo bu jëkk c'était contre les sociétés secrètes mu di la loge maçonnique de Dakar en 85 problème bi dem ba tribinal détaillé naa ko fi ay yoon ci ay émission kon du ma dugg ci détail ci ndimbalu bay Seydi Thiaw Laye xalifa général des Layènes ci ndimbalu sëriñ Abdul xaat Mbakke bi nga xam ne moo ñu battale woon ak benn jawriñam bu ñuy wax sëñ Muntaxa mooy ki fi toog tey hmm. ak ci ndimbalu sëñ Abdul Aziz si Dabaax moom sax ba léegi xale yi nga xam ne cinq fekkul woon ngeen gane si àdduna boo leen duggee ci YouTube ngeen tàppe maam Abdou Aziz espace franc-maçon xutba bu tàng ba mu defoon pour jàppale Jamra lors de notre procès contre la loge maçonnique de Dakar xutba baa nga kon jàmmarloo yi ñu am yëpp à commencer par boobu amu ci benn boo xam ne jiitaluñu li l'islam digle parce que c'est une obligation l'islam moo ne bu sa moroomu jullit tarxiisee bul ne bëri rek ne cëpp ci penc ma di ko xarab l'islam nee na ci sutura da nga war a jiital te yàgg naa di ko wax ci média yi ba mu booy nopp auditeurs yi waaye du waxi jamra waxi yàlla la mm-hmm. mu ne da nga war a jiital jëfee baat boobu ñi naan waa wa amruhum shura baynahum yéen jaam yi day leen di faratal shura yàlla ko wax mooy li tubaab di wax concertation wala di ko wax diisoo shura woon nañu avec un éminent membre de la loge maçonnique di jógoon ne dafay def conférence fii Relais de Ouakam jagleel ko étudiants yi avec un un thème très pompeux la jeunesse sénégalaise à la croisée des chemins j'ai donné tous les détails dans plusieurs émissions ndekete bañ fa demee propagande maçonnique la mais comme que jiite nañ leen suuraa ci sutura ne ko conférence bu mu fi amee du ñu nangu dëkk bii nga xam ne Bamba Maodo Baye Niass Baye Laye Cheikh al Islam Baye Ibrahima Niass yar nañu njaboot gi ba noppi ci xaala laaw xaala la ngeen bëgg fii indi une idéologie satanique waa ñu daal di dëgër bopp def seen euh, conférence de presse bi boobu ñun ñu ngi toll suñu digg doole ñu sol suñu ay jiin ak suñu ay booy doole ñu dem xeex ak gendarmerie moo mujj dugg parce que dóorante ay chaise ak yëpp xam am na fa yaw yu des blessés des bras cassés gendarmerie moo mujj dugg conférence de presse bi tas waaye seul le Sénat la ñu franc-maçon yi porte plainte pour diffamation insulte publique alors bref kilifa diine yooyu ma tudd ginnaaw yàlla ak seen dimbal moo tax ñu gañe ko waaye encore une fois jiitaloon nañu choura jiite nañ loon choura avec le président Ablaye Wade bi ko Jamra jàmbate narcotrafiquant yi ni ñuy ndaataa fii ci réew mi di yàq xale yi di leen kannasuloo héroïne bi cocaïne bi lopito bi di te kuñ ci jàpp jëlal kaaw héroïne rek gramme bi quatre-vingt mille francs la boo góorgóorloo ba tromper la vigilance de la police des frontières am nga une garantie d'une valeur marchande de huit cent millions waa ñu ne ko nag code pénal u Sénégal buñ la jàppee ay six mois la te boo amee avocat bu xarañ comme mon ami maître El la Diouf que je salue au passage euh, tu peux t'en tirer avec 3 mois alors ñu bari dañu naan 800 millions day jar na tëdd 3 mois Rebeuss Dakar était devenu la poubelle du trafic su régional de le wax nañ ba sonn Ablaye naan ñu waaw bon nangam ñun ñu daal di jóg ñu xataraayu créer un parti politique sur les flancs de Jamra ñu gis waat Ablaye Wade mu ne voilà la bonne solution léegi da ngeen di ñëw yéen naka la seen parti politique bi tudd Latif ne ko non Jamra est politique mais su les flancs de Jamra la ñu créé une branche politique qui s'appelle le RDS Rassemblement démocratique sénégalais Abdoulaye Wade ne voilà léegi ñëw leen dans la coalition Sopi ñu ànd a xeex boo leen amee siège assemblée lii ngeen di teew buy criminalisation drogue bi ngeen mën ko def ñu ngi gërëm président Abdoulaye de nous avoir donné cette lumineuse idée bref ba pënd ba wuuree Jamra dugg assemblée nationale criminalisé la yamba cannabis bi jógee Mali lopito bi jógee Nigeria brown bi jógee Ghana ak cocaïne sud américaine bi nga xam ne beaucoup d'insulteurs yu laqatu lâchement dans la diaspora di saaga suñu ay kilifa diine moom la ñuy ittewoo muy kan seen xel ba buñ koy wax sax duñu ànd ak seen sago yooyu ñu criminaliser ko d'ailleurs sax am na benn benn euh, saagakat muy Akhenaton mm-hmm. bu nekk ca diaspora ba loolu la meree Jamra ba léegi ñun ñoo criminaliser yamba te mënul fexe ba ñu revenir sur cette loi léegi minimum dix ans la assorti d'une amende qui fait le triple de la valeur de la drogue loolu aussi jiitaloon nañu choura mais julul njariñ moo tax ñu daal di utiliser les gros moyens mu di la criminalisation te yàlla jox nañu ci ndam jiitaloon nañu dem choura bi nga xamee ni bii l'écrivaine Hela Wardi en complicité avec deux grands libraires ne dañu fi jaay euh, un ouvrage sur le, la vie du prophète tuddee ko pomposement les derniers jours du prophète Mohammed relire bu rafet c'est Abdou Mbaye qui m'a alerté l'ancien premier ministre parce que baayam Kéba mbay ci keppaaru maam Abdoulaye Sy Dabakh la yaro du mbay woo ma ne ma cofeel bi sama baay am ci sanga bu tedd bi Seydina Mohamed te jële ko te nam nampe ko ci maam Abdoulaye Sy baax man jàngoro jooju dafa ma dab fu ma gis livre boo xam ne ça parle du prophète Mohammed du ma ànd ak sama sago bu ma yoroon benn 5000 francs dépense kër gi sax dama ko ci dugal toog mu ne ma dama la woo man Abdou mbay ndax ouvrage boobu jéggi na dayo presque 300 pages waaye li ma ci liir man matul vingt pages sama rongoñ di tuuru ma su maa gis coxorte ak mën a kàcc ak mën a fen ak yàq deru sang bu def naa fi conférence de presse waaye ci gàttal Jamra Diop jël ay responsabilités premier ministre ba fa nekkoon di Mohamed Boun Abdallah Dionne woo ma nee ma parce que li ma leen di wax c'était en 2016 nee ma Macky Sall a ngi Casablanca parce que foog foog il faut lii may wax ni foog mu leer parce que déjà réseaux sociaux yi am na naa naafeq yu commencé naan xanaa si amee si sa ngeen yàpp xanaa nangam waaw ah, te yéen da ngeen jóg rek attaqué doo leen waxtaan yëpp jiital nañu waxtaan. mu ne ma Macky Sall dafa sonn ci campagne électorale référendum bu 2000 bu 20 mars 2016 dafa dem Casablanca di noppalu ko dégg na coowul livre Hela Wardi bi léegi euh, nee na ma woo la boole la ak Mbagnick njaay le ministre la culture nga wax ñu yan librairie yi ñoo koy jaay ñu dem saisir ko Mbagnick dana la woo ma ne ko d'accord le lendemain Mbagnick Ndiaye ministre de la culture woo ma nee ma j'ai à mes côtés El Hadji Cheikh Dramé le commissaire de la sûreté urbaine à l'époque mais léegi monté na grade c'est le commissaire central de Dakar ma ne leen bind leen librairie Quatre Vents mu ngi koy jaay annexe ba nekk euh, euh, ci corniche bi euh, teeru bi wala beneen complexe ba sa topp mu ngi koy jaay ak sa portu Mermoz mu ngi koy jaay ñu ne ma Claire Afrique dama ne déet Claire Afrique loolu leen wax tooñ leen parce que kooku dafa nekk sous l'autorité de l'église catholique te librairie boobu ouvrage bu mu gis muy xas diine jàmbur duñ ko jaay noonu après mu ne ma je te reviens le lendemain premier ministre Mohamed Boun Abdallah Dionne woo ma ne ma ah Jamra day information yi ngeen am day cité pointu librairie yi ngeen wax yëpp dem nañ fa on a saisi 375 ouvrages ay di saaga yonent bi di ko ñàkke teggin ma ne ko jëf yàlla na seen jaan wàcc mu ne waaw léegi qu'est-ce fait ma ne ko ay ah, yéen yéen ay kilifa yi ñun Jamra lanceur d'alerte rek lañu comme que saisir ngeen ko yéen a yéen a yéen a xam noo leen koy def ah mu ne waaw mais wax jox ma sa xalaat ma ne ko ah bu ma sañoon li tubaab di wax retour à l'envoyeur ngeen def ko comme que Albin Michel l'éditeur parisien moo fi tuur mbalitam googu parce que livre buy xas yonent yi mënuma ko sax tuddee livre mbalit la ngeen paqueté waat ko delloo leen ko mu ne ma déedéet loolu day yomb c'est Mohamed Boun Abdallah Dionne qui parle ma ne ko waa ah, kon loo nar mu ne ni ngeen def yéen waa Jamra en partenariat avec les forces de sécurité chaque 26 juin qui a été par les Nations Unies journée mondiale de lutte contre la drogue noonu ngeen di def foofu ca Mamel dajale li ñuy saisir ci drogue douce ak drogue bu dure yëpp cocaïne beeg héroïne beeg opium bi lopito bi jógee Nigéria brown bi jógee Ghana Euh, ak cocaïne sud américaine dajale ko sotti essence taal ko nee na ouvrage bi loolu la ñu war a def ma nekk ah man xaw ma ne Macky Sall def ñu euh, indil premier ministre bu intégriste mu a ma mekki sama turandoo la attaqué ndax man Mohamed Boun Abdallah Dionne awma turandoo nii suma waay jur mu ngi la mu ngi ma tudde ci original ba loolu Choura jiitu na ko mais librairie yi ñoo bañ moo tax on les a attaqués on les a gagnés état bi nangu ouvrage bi sotti ci essence ci mamel taal ko kenn mënu ko lim ba mu jeex lépp dañuy jiital waxtaan bu fi kenn ne Jamra Day Jóob di acharné wu ci Massamba ak di acharné wu ma demba xëy na bi ma ciy yokk rek mooy saay-saay yi doon jàngal xale yi apprentissage sulaar di jaay ci école yi c'est ce prétendu jus de fruits ah de tudde Jakarta dañuy def jakarta jus d'orange nga jël beneen sachet jakarta jus d'ananas jakarta jus de nangam xale yi di ko naan yàlla daf ñu may chance ñun Jamra dañu bari ay enseignants imam Massamba Diop professeur de mathématiques la imam Moustapha administrateur civil la imam Adama Niang professeur d'art dramatique imam Assane Gueye c'est un professeur d'arabe et de perse alors ñoom ñu seetlu njaayu njaay mu sew mi ci buntu école yi madda ki tàngala ki soloma ki crème ki et cetera xale yi balaa ñu duggee école ñi nga xam ne dañu xër ci kiy jaay sachet soi-disant jus de fruit bi ñuy wax Jakarta ñuy noté identifier yan classe la ne mais observation bi euh, suñu euh, enseignants yi def mooy xale yooyu seen jikko day soppeeku bu ñu nekkee classe bu doon d'habitude dañ leen ràññee woon comme ay xale yu am kersa à la limite même mais dañuy commencé woowu bët léeg-léeg sax ñuy werante avec l'enseignant te daaw ñu ko def bu récréation jotee ñun ñii yëpp ba ñu nekk tout tànk jaar nañu ci xam nga bu récréation jotee jigéen ñi dañuy dem seen côté di def saut à la corde di aay góor ñi nekk fële def gendarme et voleur mais chaque fois bu xeex amee bu ñu leen attee au moins kenn ci ñoom consommateur u Jakarta la sama njorte ñaaw ma daal di woo Momar Ndaw bu Ascosen je le remercie au passage ma ne leen yéen ëpp expérience Jamra ci wàllu produit de grande consommation man nettali ko yëpp xale yi naan Jakarta daal seen jikko dana soppe mu ne ma kon li ngay def da ngeen di dem trois établissements scolaires différents fu ne ngeen fa échantillon après dinaa leen orienter vers un laboratoire d'analyse ñu dem ci laboratoire d'analyse des laboratoires différents xamante wuñu ñoom ñëpp même résultat ndekete am na 10 pour cent d'alcool kon xale yi dañu daan mandi ñu di leen ci entraîner pour ñu nekk des futurs soulards de demain mais nag avant ñuy plainte def nañu communiqué. Mm-hmm. mais ñu ngi ñaan naar bi jaay parce que benn libano syrien la bi fi jaay euh, Jakarta na ko arrêté mu lank on a porté plainte avant tribunal de réagir président Macky Sall mm-hmm. daal di actionné Aliou Sarr le ministre du commerce de l'époque mu daal di def benn arrêté ministériel en date du 18 septembre 2015 interdire sur l'étendue du territoire national lépp luy njaayum Jakarta mm-hmm. boobu jiitaloon nañ Soura ainsi de suite ainsi de suite ba ñu demee ba ci dérive audiovisuelle yi ñi fi eh, créé woon dégg nga bande annonce wu euh, série boobu ñuy wax euh, cirque noir ni coow amee si sa jibee alerte yu bari fu ne ñi di ñu fa interpellé dans les réseaux sociaux c'était la même chose Jamra xanaa yëgu leen li euh, toroxal jigéen ci cadre série yi façon bu ne am na fi porté ngeen plainte contre infidèle ndaw soosu nga xam ne ba nga fiy dugal lu bees muy striptease à l'américaine xaw ma leena la xaw ma dindi o bi sànni dindi string sànni dindi soutien sànni dindi slip sànni ngeen porté ko plainte ba ñu suspendre au niveau de toutes les télés du Sénégal la diffusion de infidèles pendant 4 mois ça leur a coûté des dizaines de millions parce que annonceurs yu bari dañu ne wëlbati dem uti ñeneen waaw xanaa gisuleen cirque noir mm-hmm. ma leen yónnee leen ma parce que man du ma seetaan série waa benn waa Jamra du seetaan série waaye yéen ñuy alerté yónnee leen ma kii bi extrait ñu yónnee ma ko li ñu wax yëpp ma gis ko pour la première fois dans l'histoire du du de de l'audiovisuel ñu gis jigéen bu ñu futti ni ko ndeyam jure muy am des seen sexuelles au lit loolu toroxal jigéen fa la mën a yem ñu artu nee leen retirer leen seen bande annonce bi série bii du fi jàll ñu lànk ma dem seeti la commissaire Ali Kandé de la brigade de cybercriminalité yoon moo ñu may loolu ñu ñun ñi ñëpp les consommateurs on a le droit de protéger nos familles et nos enfants alors commissaire daal di sukkandiku sur la loi 2008 11 du 25 janvier 2008 qui interdit toute diffusion su quelque forme électronique que ce soit vidéo son photo de, de publications qui portent atteinte à bon bonnes mœurs, qui l'image de la femme ou ki met en péril la santé mentale et morale des enfants ñu arrêté bañ leen di entendre il y a eu des indiscrétions que nous avons lues dans la presse ci rapport d'audition bi mu am ci passage bu reelu réalisateur bi la xaw ma producteur bi mm-hmm. enquêteur bi nekk ko waaye yéen booy lu tax ngeen def lii lii musul am Sénégal xanaa Nigéria bi nga xam ne battre na tous les records sax ñu ba fii lan moo tax ngeen def benn band annonce purement pornographique te band bi rek jéggi na dayo rawatina la la muy annoncé la muy annoncé ñëwagul kon loolu bu ñëwee nu muy mel lu tax ngeen def li booy bi wakkoon do grand dañ jubluwu ñu si def lu bon mu ne waaw tax ngeen def ko mooy dañ doon def bad buzz waaye ñu ne ko luy bad buzz ci àdduna ouais non dañu def benn série on n'a pas de à financiers adéquats léegi daal ñu def benn band annonce choquante comme que dañ koy monétiser ci YouTube voilà lu ñu ci am rek ñu dugal pour financer suñu série kon xale yooyu bonuñu mais ils sont mal informés parce que état bi créé na FOPICA le fonds de promotion des cinématographiques et c'est pas normal Evenprod bi ci tibb bu baax Marodi di di ci tibb bu baax des jeunes producteurs ñu di leen seetaan ba ñuy mujjee di def ay infraction pour am lu ñu financé te pour ñëpp la comme aide de la presse bi ngeen baal ma seen patron yi ñoo koy lekk di si takk ay ñaareelu jabar ak jënd Mercedes waaye yéen feeñul ci yéen loolu beneen combat bu Jamra di préparé la nangeen ngeen siy jàppale ma ma terminé maa ngi ñëw damay def introduction alors bu ko defee xale yooyu on va les aider parce que contacté naa Ali Kandé kii euh, euh, Germain Colli le directeur de la cinématographie ma ne ces gosses là ils vont bu ñu génnee kaso war nañ leen dimbali parce que effectivement bi Jamra porté plainte procureur jox ñu dëgg parce que artu nañu ñu lànk après 17 jours de détention préventive dans les locaux de la brigade de cybercriminalité le lendemain ñu jugé leen producteur beeg réalisateur bi ñu fëgg leen deux ans de prison avec sursis acteurs yi ak actrices yi de prison avec sursis voilà léegi génn nañu seen nijaay laay déglu on va les aider pour que gosse si am accès au financement loolu rek la parce que nee naa leen boo leen leen dimbaliwul waxuma la bad buzz waaye dañuy dem jaay yàmba pour mën a financer seen sëy bon alors je c'était une introduction importante moo tax nag euh, loolu nga xam ne ay ay mbir yu ñuy produire la di ko wasaare ci pénc mi mais yéen ñi produire yooyu yéenay ñan ba pénc mi ngeen bokk ak ñëpp waa pénc mi ñu droit yéey ci yàbbi yéenay ñan parce que boo ko seetloo suñu jamono maam yi pénc traditionnel yi mag ñi fa lañ daan daje di waxtaane problème mu askan wi dañ fa daan takki sëy di fa jubalee ñaar ñu juboo di ko waaye penc yooyu dañu amoon code de conduite bu ñu ne tey mag ñaa nga war a daje sa suufu garabu bent ñëba wala si taatu garabu guy ga dafa am code de conduite dañaa ah, fii kenn du fi saaga fii kenn du fi ñàkk teggin mag et cetera mais 300 ans plus tard penc yooyu dañu moderniser léegi on a des plateformes numériques ay penc la Facebook penc la YouTube penc la Instagram pence la TikTok penc la ndax dafa am ñoo ko bokkal moo moo ko looloo waral ñooñu dontele bokk ñook ñoom culture mais ils disent la même chose que ce que nos ancêtres disaient sa jamono pencu bente ñi ba ak taatu guy gi yéen ñi ñëpp jaar ngeen ci képp ku ubbi compte TikTok wala nga ubbi compte YouTube compte Facebook toujours borom site bi daf lay wax ses conditions ginnaaw bu la laajee nom prénom date de naissance adresse sexe masculin wala féminin ba nga tontu ci yooyu ci suuf en petite écriture am na lu ñuy wax les les règles de la communauté foofu ñu naan la nag fii kenn du fi def lii kenn du fi def des publications yu indi bot di ci wàllu xeet kenn du fi toroxal jigéen kenn du fi def des publications pornographiques wala la publicité de vente d'armes et cetera ba ca fin ba y a deux boutons j'accepte wala j'accepte pas kon kenn forcé wu la boo nee j'accepte pas nga génn doo bokk ci kii bi boo nee j'accepte nag cee conditionné alors loolu nag ba mu amee état yëpp dañ ci dañu réajuster seen législation parce que lu bees la nouvelle technologie bi France réajuster na sa législation balaa France Sénégal gënu ko démocrate ferme nañu six sites pornographie te motivation bi ministre de la culture joxe dafa ne ça porte atteinte à la santé mentale et morale des enfants boo demee États-Unis Netflix mu di benn plateforme en streaming yéen ñëpp xam ngeen ko pourtant privé la ku ci fayul doo mën a abonné pour tontu si Ahmed Cissé ci benn baat bu mu waxoon journal bu ko doon laaj naan ko waaw yi ngay génne xale yi eh, di ci tombe mu ne waaw ku yar sa doom te dégg nga di dégg nga eh, eh, war mu war a tëdd waxtu kon yi may def man guddi laa koy def kon adulte yi laay waxal loolu du wax ak naan pour jëndal sa doom benn smartphone dara obligé wala nga di ci installé benn application TikTok du wax États-Unis bu leen neexoon ne Netflix ku abonné rek moo ciy dugg kon suñu yoon nekku ci déedéet waxuñu loolu le sénateur républicain du Texas moom moo jiital fronde bi des centaines et des centaines de pères et de mères de famille ñoo porté plainte Netflix nee ko na nga de ton bouquet publication boobu ñuy wax mignonne mu di des jeunes actifs de 17 ans 18 ans di def de la pédopornographie moo tax y une procédure judiciaire pénal fii ñuy wax ak yéen contre Netflix aux États-Unis kan moo gën a démocrate euh, américain yi mm. et respectueux de la liberté d'expression et d'association et je termine par les pays euh, de, de, de, du Golfe mm. bind nañu lettre de mise en garde à Netflix ñi ko signé mooy Arabie Saoudite le Koweït Amman Bahreïn nee ko gis nañu ñaari série benn bi série góor jigéen la benn bi série lesbienne ñun dafa am yu ñu gëm te le bouquet Netflix dafay couvrir tous les pays euh, membres euh, des de des états du Golfe ñu ngi lay demander nga retirer ko sinon ñun pays yooyu ma leen wax. nous avons les moyens technique et financiers pour fajal ko suñu bopp léegi lan la Netflix def nga xam ne moo tooñ il a demandé un délai Sénégal nag daal di inspiré wu ci yooyu yëpp comme ni dëkk yooyu yëpp inspiré wu sur l'évolution de la technologie daal di aménager sous le régime du président Ablaye Wade la loi 2008-11 du 25 janvier 2008 qui interdit toute forme de publication sur un support électronique quelconque moo xam da ngay waaraate moo xam dangay def publicité de de d'une série alors sur un support de de de, vidéo euh, image son te muy porte atteinte à nos bonnes mœurs di dégrader l'image de la femme wala di mettre en péril la santé mentale et morale des enfants kon Sénégal presque moo mujjee ajuster sa législation euh, sur Euh, après l'avènement des nouvelles technologies alors moo tax nag bi Cheikh Ahmed Cissé euh, vers fin 2022 euh, coow lu rëy loolu toppoon ko fi te yéen ñëpp fekk ngeen ko ñun jóguñu ah nañ lañ ko plainte déedéet mu ngi may dégg dama ko woo le 19 octobre 2022 mm-hmm. ci guddi pendant 45 minutes maa ngi moom rek ak yàlla ci téléphone bi ma ne ko si Ahmed Cissé jarul ma di la def un dessin wala une description coow li dëkk bi li ñuy mer xam nga ko léegi il faut que nga jéem a xoolaat sa toogaay te yow ustaas nga man ndongol daara la waaye terewul euh, lii may def nii yaa ñu ko jàngal mu di lislaam dafa ne sa mbokk jullit bu tarxiisee lislaam nee na bul ne bërit daal dem euh, xalab ko ci pénc bi nanga nga jëfee ak moom loolu euh, diina ji tudde wa amruhum shura baynahum mooy yéen jaam yi da leen di faratal shura shura tubaab di ko wax consertation wala di ko wax diisoo waaye dafa am suñu borom teg dafa ne fa isa azamt mooy boo sàmmonteeg principe boobu ba noppi fatawakal alalaahi nga doog a wàkkirlu ci yàlla ma ne ko nag ñun egguñu fu ñuy wàkkirloo ci yàlla parce que am naa yaakaar ne lii ma la wax xam nga ko jarul may détail eh, te li nga ci war a am comme taxawaay itam xam nga ko bref pendant 45 minutes lan la ma si amee si si tontu waaw Guèye jërëjëf eh, kontaan naa si jokkoo bi ak ci woote bi léegi daal eh, Euh, ma ne ko balaa ngaa sori sax maa ngi lay gërëm parce que yow yaa ma woo dama yónni woon sama jarbaat Biram Traoré mu lijjantil ma sa numéro mais bi nga yëgee ne am na benn waa Jamra bu lay wër yow yaa jël initiative woo ma ne ko voilà kon loolu maa ngi la ciy remercier waaw mu ne ma kon daal lii nga ma ñaan mu ne man Cheikh Ahmed Cissé am na fu ma tegoon Jamra mais nii nga waxee ak man teg ko ci diine teg ko ci moral ak ci xam-xam tax na ma am yaqin bu wér ne ndekete yooyu yéen fi teg ngeen ma fu gën a kawe fa ma leen tegoon kon yow maam Makhtar Gueye bu ONG islamique jëm daal lii nga ma ñaan man see Ahmed Cissé nangul naa la ko du ma ko gëm mu mu daal di mu daal di ne bàyyi na ba mu waxee loolu ñi ma woowoon yëpp fësal seen mer ma woo leen nettali leen échange téléphonique bi ma am ak Cheikh Ahmed parce que ñoom ñëpp meroon mm. bokk na ci Euh, sëñ Basirou Mbacké Cheikh Astou Fall di jarbaatu sëñ Muntaxa mhm. yebal na fi jawriñam bu ñuy wax oustaz Adomo mhm. ma rendre leen compte rendre naa compte imam Moustapha Diop bi euh, di administrateur civil vice-président de l'ONG Jamra chargé des relations avec les institutions religieuses ma rendre compte imam Massamba Diop président exécutif de Jamra rendre compte suñu beneen partenaire mu di euh, Euh, imam Mouhamadou Lamine Diagne imam ratib bu Wakaam ma rendre compte imam El Hadj Aliou Dia bu Tëngéej et cetera maa ngi jégalu ñi ma fàtte mais mat nañ 18 ma leen daal saway daal nee na dafa juumoon jégalu na kenn si ñoom ku ne ma dina bàyyi ne ma ah kii xam naa ko de hmm. yow li mu la wax doy na la ma ne ah nañu rafet njort rek comme que nee na bàyyi na nangu na ne wax ji ëpp na moo tooñ dañu hmm. rafet njort rek te ñu may ko bët ñu ne baax na mais dañ ci teg même pas dix jours ma guddee woon tëdd nekkoon ci ay liggéey naaje yow taal sama téléphone junniy message